mel est-ce que tey ji syndicaliste am benn renouveau ak des nouvelles têtes yoo xam ne vraiment. ñu ça va la dernière question parce que temps bi. solo am na solo sauf que aussi bëgguma tooñ. xam nga centrale ou syndicat dafa nekk une association de personnes. ñoom ñoo boolewoo. Hmm. jël seeni leader teg ko. waaw leader boobu bu defee cent ans quatre dimanche te ñoom ñu koy seetaan sawru lu ci mën <laughs> comme ñoom ñoo ko bëgg jiital ko mhm. te nañ leen bàyyi ñu jiital ko de toute façon bu dee am na eh, ñenn ñoo xam ne gëm nañ loolu nga wax mhm. comme au SAEMS le secteur général mënul def plus de deux mandats moo tax ma quitté moo tax aussi moi je disais ah à l'époque mhm. c'est c'est c'est c'est quand même manqué d'ambition que de vouloir s'éterniser à la tête d'un vers un central aussi les enseignants. ak ñi ngeen bëri nous même nous même on est avec la CNTS FC. de Cheikh Diop ça aussi il faut que ça soit clair le SAEMS ne soutient aucune autre centrale à part la CNTS FC de Cheikh Diop. keneen ku dem soutenir tamit tu l'as fait personnellement mais ça n'engage pas le SAEMS ça aussi en tant que militant du SAEMS je sais que c'est comme ça que notre organisation fonctionne.